ayca mi ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Modou juuf ak Abdou Top Abdoulaye Diallo ñuy féetee ci régie bi ñu nuyu nag mbokk internet yi nga xam ne ni ñoo ngi bàyyi xel say su nekk rek solution TV solution info mbégte la ñuy am comme altine bu jot ci l' émission des émissions nuñ ko fa seenee di defee rek ginnaaw bi ñu leen nuyoo dem nag ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ñaanal leen jàmm ñanal ko itam sëriñ si mu sëriñ Laxaat Mbàkke yàlla suñ boobam yàggal ko fi loolu moo ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam bi wasaare ko ci biir këram da koy ñaanal mboolem xalif ci biir réew mi yëpp suñu mbokk yi nga xam ne ni ñoo féetee ngi leen ñu nuyu di leen sargal bu baax a baax ñu nuyu ko nag moom mi nga xam ne say su nekk rek moom la ñuy sekkal bi lay waxtaan moom alaaji sa njogu meng mu nuyoog internet yi nga xam ne rek ñu ngi bàyyi xel solution TV alaaji kàddu gaa ngi noonu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 ñuy am ci ñëpp mbégte ak kontaante alaaji Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye Diallo nuyu nañ leen di am ci ñëpp mbégte ak kontaante la bokk itam moo lay teg pression chaque jour tey moom teguñu pression ñu sax ah waaw tey moom taluñu moom tey mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci ay mbiram ay bagaasam <laughs> <laughs> tey taluñu macha allah bu baax a baax euh, di ko jaajëfal bu baax a baax moom joogo Meng mi nga xam ne moom la ñuy sëkkal bi la jotaay Alaaji Modou tey nag daañu fas yéene waxtaanee euh, ki nga xamante ni nii moo di Abass Fall bokk ci parti boobu ñuy wax Pastef moom nag ma ngay euh, daal di ñaxtu rek ak di wax lu président de la République du Sénégal muy Bassirou Diomaye Diakhar fay ngir rek ñu lijjanti ñi nga xamante ne ni ñoo sàcc lu réew mi lu bël fi lu bëree bëri nee na nag ñooñu jot na ñu yóbbu leen ci kaso yi. moom daal euh, kàddu yooyu la yëkkati jëmale ko ci euh, président de la république du Sénégal bu ñu ca noppee daañu ànd ak yéen euh, ci émission bi am par vendredi fële ca Sen TV di Ndoumbelane moom nag nemmeeku nañ ca euh, daanaka nag ab débat bu nga xamante ne nii euh, keroog tàng na lool jëm ci diggante kii ñuy wax kilifa bu yanamaax ak kii di Ahmed Ndoye ak Moussa Niang bu gëm sa bopp moom daal wax ji moom bëri woon na fa ba euh, moom kilifa daal leen di wax que kër dof yi li leen ko tuddee nekkul loo xamante ne ni du njuumte waaye nag kii di Ahmed Ndoye daf ko daal di tontu rek ne ko man daal dafa mel ni nekk dof moo ma gënal fukki junni yoon nekk ab hypocrite buñ ca noppee ñu jeexalee ko ak ki nga xamante ne nii moo di Mansour fay moom nee na nag fi mu toll nii euh, réew mi di Sénégal dafa nekk ci ab danger parce que nee na ràññeetuñu jamono ji euh, kan mooy président de la république di Sénégal nee na menace yi nga xam ne nag premier ministre bi mi ngi koy def euh, moom nee na nag toll nii jàppeewu ko dara lu dul ay waxi gone euh, wax na itam mm, ci liy jëm ci 100 jours yi nga xamante ne ni gouvernement bu yees bi def na ko fi nee na nag nekkul lu dul la kata mm, moom moo fa yéene nekk waxtaan wi tey kon Modou Diouf dañuy ànd ak yéen rek jëm ci li nga xamante ni moo di Abbas Fall. bi mu yëkkati jëmale ko ci président de la république di Sénégal jëm ci rek lu dul ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir réew mi sàcc alal gi lu ba réew mi ñi rey nit yi itam jot na ñu dem fële nga xamante ne ni euh, mooy euh, ca Ndungu Sine au Ñuuf ñu dem déglu ko tëddeel si Modou Diouf. maa xam naa waruma sax wax ni ak président de la république. mais président de la maa lay ñaan. j'espère que yaa ngi may dégg population ñu ngi lay ñaan ci njekk président ñu sàcc suñu alalu réew mi nañ dem ci kaso bi président ñi sàcc ci ñi rey suñu doom yi nañu dem prison président population yi xaaruñu woon sax ay wàññi ceeb ay wàññi diwlin président sénégalais lu ñu bëgg mooy la justice nos deniers publics ñi ko sàcc toog fii du ñu ruube ils doivent aller en prison ñi rey suñu doom yi il faut les traquer il faut qu'ils aillent en prison loolu la ñaan li ci des nag moom tànk bu ngeen teg daañu ànd ak yéen bu jërëjëf ji dégg nga kàddu yi nga xam ne moom Bass Fall yi réew mi indi fi ay gàllankoor yu bëree bëri jamono ji nekk na demande sociale ngir rek ñoom ñooñu dañu war a dem au ñuuf moom daal loolu la yëkkati comme ay kàddu nee na sax ceeb beeg eh, ak wàññi dund gi bokk na ci priorité yi waaye daal eh, jàpp na ni justice bi fi ñu toll nii moo war a nekk ci. waaw macha allah am na solo xam nga Abbas eh, li wax xam nga dafa am fu mu ko waxee. am na koo xam ne tey mi ngi seetaan vidéo bi daal ne lu tax waxewu ko feneen fu fii ci biir wax ji loolu la jiital daal ne waruma ko woon sax waxee fii après mais pourtant waxee na ko fa wax ji nag dafa am solo man pour man fim ko waxee nii waaw ah, parce gis nga état dafa am lu mu soxla parce que boo seetee bajji bajji ju bari ji ci réew mi layi lay gi ñenn ñi dañoo def dem ba defe ne maanaam kenn ñemewu leen a laal c'est que genre abbas yi ci ñuy delloowaat ñooñu ñu yem la ñu xam ni ñu ngi ci seen tànk xam nga en politique dafa am noo xamante ni euh, ci la nit ki di mën a kii maanaam politicien day bëgg lu jóg rek euh, mu boo jógee attaqué leen mm-hmm. ñu jéem a politiser mbir mi mm-hmm. boo seetee créé nañ ay nit wax seeni wax nit ñi génn ñi ngi ci tànk diw ñi ngi ci tànk diw maanaam pour jéemoon a politiser yëf yi léegi nag li la Abbas di wan nii que ni yëf yi yeex na mm-hmm. yaa ngi dégg loolu moo lay wan ne la euh, président accéléré wut justice bi pour lijjanti ay problème politique maanaam mbir yi du ay problème politique mais problème justice la li ñaan temps wu justice ak sunu temps du benn même bu fekkee ne say militant dem nañ ba nga xamante ni yëf yi yéex na ci ñoom kon moo lay wan ne la manipuler woo justice bi. déedéet jéemoo utiliser yoon ngir def li nga bëgg parce que say ñooñ tey ñoom ñoo taxaw am loo xamante ni euh, ñi ngi koy naqarlu ndax jàpp nañ ni yëf yi dafa yeex mais nag tontu bi mu li mu wax nii ci mbedd mi loolu dafay baax pour nit ñi. xam ni ndekete euh, waa Pastef. ñoom ñoo gën a bëgg fi mu toll nii pour régler problème bi ñoom sax yëf yi yeex na ci ñoom waaye nag day xamalaat nañu eh, état bi moom jëluñu yoon def ko seen moomeel parce que buñ jëloon yoon def ko seen moomeel ba ñe bërëg rek la ñuy utiliser yoon ne ay waleen waaye nag li kii di wax ne eh, tëj innocent bàyyi ku defut dara moo gën nga jàpp innocent maanaam balaa ngay téetit na nga ko saytu gëstu ko ba xam ni kii kat def na jàpp naa ni justice bi ci loolu la nekk ak tamit réforme yi nga xamante ni bi dugaloon nañ ko ngir joyantiwaat yenn yi mais ministre de la justice sax annoncé woon na hmm. yenn yi nga xamante ni bi war na am ci kanam hmm. te gëm naa ni lii am dana am ci beneen côté bi alaaji ñoom dañu taxaw di wax ni booba tey ñi ngi lim ay scandale yi ñu fi def mais jàpp guñu kenn dafa mel ni li ñuy wax ñoom waaw ay scandale xam nga tey xibaar bu jógee loolu xibaar la yoo xamante bi jóg na ñoom ñëpp xam nañu lii a ngi ci penc bi xam nga am na ay jamono da nga nekkoon ci jamono joo xam ni dañuy jàpp nit ka noppi di soog a wër lu mu def mm-hmm. léegi nga nekk ci jamono joo xam ni dañ laa wax lu nit ki def ba noppi nga gis ni téewaguñ ko mm-hmm. kon loolu moo lay wane ak coppite am na ci yëf yi parce que wane nañu ma jigéen nekkoon na tel poste def na fa luubal na nangam luubal na nangam luubal na nangam. Mm-hmm. waaye ma jigéen demaguñ ci moom jëli ko bu njëkk ba nag dañ naan tee ma jigéen ba noppi naan waaw moom lu mu def sax. Ah, ñuy wër naan moonte waa est-ce que ci lii est-ce que nekkutoon ci lii léegi jóge nga ci cadre boobu bële dafa. maanaam ki ñuy jàpp te defagut ñu bëgg ñi ñee doon doxalee ñu doxalee. waaw ñu mu tax affaire boo doxalee noonu rek. Mm. askan wi léegi ñu mere la. Mm. parce que dañuy je askan bu tu gis nga bés ba dugalee loxo politique. Mm. askan wi mere la parce que askan wi dañuy jékki-jékki rek daan ne ah non non Karim Wade demande nationale la woon bi ñu koy wax ne Karim Wade jàpp leen ko. et pourtant ñi doon wax ne jàpp leen ko mujj gi ñoo ne nañ ko ba. c'est parce que dañ fa dem ba nit ñi yëg ni politique a ne ci biir. ginnaaw. comprendre nga. Mhm. donc nag loolu baaxul li am solo mooy ay rapport ñoo génn wax ne diw taq na diw taq na diw taq na rapport yooyu dafa am fu muy jaar fi muy jaar ña nga xam ne lañuy def danañ def li ñu war a def ba bu ñuy woo diw ñooñu du doon lenn politique waaye dañuy jàpp xam ni ñu war a rendre compte askan wi la wax dërëm bii fu mu dugg lu tax mu génn fu mu jëm li ñuy annoncé nag du tere ñu ngi koy annoncé di def ay rapport ak tamit di wax ay kii premier ministre dem na fële wax ne nangam li ñu waxoon ne moom la ñuy dugal ci mbënd mi anamu danañ gëstu fan la jaar yooyu mooy problème yi nga xam ne bii tegaloo na te bis bu ci justice tàmbalee rek di nga xam ni tàmbali na ci waaw mais nag euh, li Abbas def nii kii lii mooy politique mooy aspect politique bi waaw waaye di wax ñële euh, ne leen ñun ñoo leen gën a yàkkamte tëj leen ci kaso bi waaw loolu baax na. mi noonu en yéeme na lool waaye nag euh, du ñàkk rek euh, mbir yi dana am suite incha allahu rabbi ñu dem nag euh, ci xuloo bi dox ci diggante kilifa Moussa ñaa ak ki nga xamante ni moo di Ameth Ndoye ñu seetaan ko te dellusi le sujet dama koy euh, def ma continuer. oui dama koy def. Euh, man politique gu dàgg sant am na ñoo xam ni. moo tax askan wi sama référence. si lan ngeen mën. aw ma référence si keneen moom mooy référence si keneen mais kilifa moo tax ñu leen di wooyee kër dof yi. moom moo tax ñu leen di wooyee fenkat yi yéen moo tax ñu leen di wooyee fenkat yi. moom mooy baxoon moo tax ñu leen di wooyee fenkat yi. mais mu tax ñu leen di wooyee fenkat yi. ndax buy demee sa booy yi non mais moom mi ngi wax sama temps de parole lay wax bi may coupé léegi sama temps de parole la bi may coupé. bi ma ñëw fii dañ ma ne bul dem xam nga tey. léegi beneen bi mooy tey. man kër jàpp ci moo ma gënal kër duulkat yi ak kër ñi nga xam ne ay. mais c'est votre problème. voilà non non dafa am loo xam ne ma gënal kër fenkat yi ak kër naafeq yi ah. ah beneen mooy tey beneen bi beneen bi mooy tey dafa am loo xam ne dafa am ci réew mi. non comme commission ak compromis. xam nga yooyu baaxul quoi. pour nga animer ces ces enfants ici ay waxu réseau ah, ay kër dox. man kër dox moo ma gënal kër fenkat yi ak kër naafeq yi <laughs> les gens ay tonton. waaw mais non non non mais kilifa. peut-être am ngeen ay invité di leen neutraliser. mais du nekk kilifa xam ngeen ñun nekkuñu si bassesse yooyu kilifa. on parle de la république et l'avenir de ce pays. ay nangam. non c'est à toi d'être correct faut pas dire les gens dof kër dof yi. ah kon yéen a bindoo ni tabañu tëggee leen ñaari bopp. parce que bu waxi dof rek laa fiy dégg ay dof yi. vous êtes des fous. ay dof rek laay dégg. un fou qu'on a fait. allez s'il vous plaît. ma xaaral. s'il vous plaît. c'est moi qui parle. <laughs> voilà mi ngi noonu eh, Alaaji dégg nga li nga xam ne rek euh, amoon na euh, ci diggante euh, kii di fa Moussa ak kii di Ameth Ndoye danga ma a wax nag wax ju am solo buñ la nee dof nga bis boo ko nangu bis boo ko boo taxee ne ma rek mooy que ni yow dof nga mais dafa mel ni tey Ameth Ndoye dafa wax ne moom il préfère qu'être fou que d'être un hypocrite. xam nga. wolof de day am lu muy wax. dañuy wax ne wolof moom mën naa paren saay wax loo xam ne yokk ko waaye eh, dañuy wax ne olof lu mu léebu. dëgg la da cay dolli rek. waaw lu mu léebu dëgg la quoi maanaam. Hmm. xam nga olof daf ne gaal dox du teer. <laughs> ñu ne ah dana teer fa muy teeree moo dut neex mbokk ya. waaye ñoom xam nga seen doxalin. Hmm. moo leen warutoon a permettre ñu indi kilifa. waaye dañoo yor seen gaar rek di daw ba tefesu kilifa ñu wàcc ma loolu moo njëkk a nekk erreur. xam nga booy bi wax na kàddu goo xam ni ku nite du ko wax ci plateau. déedéet. waaw xam nga boo ne Kër Dof yi moom a gënal wax. am na wax yoo xamante ni mm-hmm. eh, sa bopp ngir di ko wax. kon moo la wax ju waxuwut la waaye li tax mu oyof ci ñenn ñi maanaam fi leen gone yi dëkkale. parce que tey jii am na koo xam ni buñ ko am nuñ ko jàppee mën naa mën nañ ko permettre mu wax lu ne ci pénc mi amul problème c'est parce que dañ naan nekku fa xam nga boo seetee dangay xool ak dama lay jëlal kenn parce dama lay jëlal waa ji wax ni gëm sa bopp waaw xam nga gëm sa bopp moom ki gëm boppam boppam la gëm ki gëm boppam du boppam la gëm gëm sa bopp benn militant rek la war a am muy ki nga xam ni moo ko sos. muy waaw parce que kooku rek gëm parce que keneen ki ñëw gëmut boppam bu kële la gëm wala comprendre. comprendre maanaam keneen ki fekk si parti bi gëmut boppam. waaye moom jàpp na ni dafa gëm boppam kon moo lay wan ne la nekku fa waaw bu ñu gëmee seen bopp rek ba ko parce que bu ñu gëmee seen bopp dañ koy ba ay militants dañ koo gëm moom lañu gëm moom moo gëm boppam mais ay militants moom buñ gëmee seen bopp dañ koy ba waaw kon moo lax moo tax kon ma lay wax ne la kii lot muy booy bi euh, xam nga moom mooy ñu jël la te ñëpp xam li tax ñu di jël la yow dong yaa xamut li tax ñu jël la yow jàpp nga ni da pertinant te fekk ne dañu la jël teg la ci plateau uniquement c'est parce que yaa ngi wax nit lu ñaaw mais nga jàpp yow ni analist nga am boroom xam-xam nga te fekk yow xamoo ni man li ma jomba defal sama bopp maanaam munuma ko def mm. ma wuti ji koo xam ni jàpp naa ni mën na ko ma teg ko ci plateau bi kooku nag yëg ni léegi moom boroom xam-xam la xam nga loolu tamit ku ni bu nitee woon dëgg dina xam ni du xam nee naa tooñ nag alaaji borom xam-xam wax léegi nga koy woowee kër dof loolu tamit tooñ la de. waaw mais xam nga xam nga ma wax la leen xam nga bu fekkente ni dañu jekki-jekki rek. Mm. ay nit joxoñ benn mbir. wutal leen tur. xam nga tey jii. bu fekkente ni dem nga fa te fekkoo fa lu mel noonu. Mm. xam nga ki ki njëkk ki leen njëkk a seetlu ba tuddee leen ko. ku mën a seetlu la. Mm. parce que dafa xool ay wax yu cohérent wut yu yenn wut maanaa yoo xam ni xel mënu ko jàpp ba noppi ñu ko fa wax ay nit di toog di fa wax maa ngi lay expliquer ne la li tax ñu tuddee leen ko boo gisee vidéo bi nga xam ne moom lañ jàllale. Mm-hmm. bu jàllale ko. wax ne ne émission. kër dof yi ba noppi daa teg ay wax. ñu tegal la waajoo xam ni nee na pétrole bii jo bis biñ ko war a kiiwee jomaay dafa waroon na ñëw dañu waroon a ñëw laal pétrole bàyyi nit ñu ñu laal pétrole bi yaa ngi dégg mu ne bu ko defee ñu xam ne laal nañ pétrole ñu taqal ko suñu loxo ñu taqal ko soo koo yëg ni am nañ pétrole il faut ñu taq pétrole <laughs> ñu jël keneen koo xam ni wax na ni paanu eh, yàpp paanu yàpp maanaam mënoo kii moom même moom moo ko waxaat même nit ki même nit kooku moo ne li ñu wàññi ci mburu mi salaire yi bu ñu defee nii ak ak liñ ci yokk liñ ci mat na salaire u Sénégal mi mi mille mille milliards ci mburu même nit ki di toog di wax loolu ci plateau bi et pourtant chaque jour ñu ngi koy bàyyi muy wax. Hmm, keneen ka toog keneen ki toog. nee na si ni mu tontoo. waaw ni mu tontoo wax wax yoo xamante ni bii mel ni xamut lu ci pénc mi te ñooñu ñoom ñooy taxaw di wax donc bu leen euh, buñ leen tuddee ne kër nàngam yi tamit am na ñi leen ko tuddee. doo leen jox tort à cent pour cent. Mm-hmm. parce que da ngay xam ni am na ab tàmbali ci li ñu gis am na loo xamante ni bii wax yu mbir yu yenn wut maanaa la. donc loolu mooy li nga xam ne moo am en tout bu ñu demee ba ñenn ñi mën a taxaw ci plateau di wax leen lenn li ñu cautionné loolu di bàyyi yëf yooyu muy jàll mel ni comme si rien kon kër googu am na problème war nañu xoolaat seen doxalin. Hmm. parce que nit ñi yàgg nañ wax télé lu ne mais mosuñoo jekki-jekki jëlub télé rek tuddee leen. benn façon tur bi. nga wutal leen générique tegal leen waaw wutal leen générique wutal leen kii dina xam ne nag fi mu toll noonu <laughs> euh, seen loolu dugal nañ seen bopp ci guuto goo xam ni euh, seen lii buñ ko weddee ci ngi ci erreur buñ fi nekkee naan duñu dofal. duñu ñoom duñu ay dof ah, waaw waajoo ji wax na ko sax nee na nga toog di wax ni dof. Mhm. Euh, tamit neexul de. neexul moom neexul kay. nañ jéem a soppeeku yàlla baax

bi ñu taxaw tey ci nii di am lu ñuy tiit ci biir réew mi. waa xam nga pare saay nit kiy wax. Hmm. ngay xool li mu wax ak yow li nga dem pare mën naa nekk ci danger te yow nekkoo ci danger pour pourtant ngeen bokk même réew mu ngeen ne euh, mën naa nekk parce que danger moom gi mu ne ak ñi mu xam ñoom ñi ngi ci danger wax nañu wax na dëgg. mais ñeneen ñi nga xam ne ñoo taxawal li fi ne ñooñu nekkuñu ci danger parce que ñoom dañoo jàpp ni dañoo jóge ci danger ñëw ci loo xamante ni lu kii la donc gis-gis yi mën na waroo parce que moom ni muy xoolee ak ñun ni ñuy xoolee bokkut ñun dañu xool ni ñii fi ne ñoo gën ci réew mi ñoom ñu xool ni ki fi nekkoon moo gën ci ñoom donc la fait que lii ya fi ne lii moom mënta gis mbaax gi parce que mbaax gi mbon lay doon ci moom parce que mbaax gi mooy lan mooy ñu indiwaat fexe yoon tëddee njaxanaay ñu càmbar ñi ñu fi dénkoon te moom nag daf cee am ay cër yu rëy moo tax wax dëgg fa yàlla danger googu mu wax noonu. Hmm. Euh, mi ngi ci danger. parce que fi mu toll nii tey boo déggee ñu leex dans le budget Covid bi. il faut ñu càmbar ko te moom. 1000 milliards mu ne ci woon. di séddale di def kii. ba na dese woon leer na ko ni fi mu toll nii mi ngi ci ay. problème euh, problème yoo xamante ni bii mooy kii xam nga pareen saay euh, ñu wax nit euh, ne diw diw dalaa raw xam nga raw maanaam rawante mm. maanaam nit ñi dañuy juddu nekk xare nekk kii nit ñi choisir seeni yoon. ñiy jaar ci yoon bii ñiy jaar ci yoon bi léegi ñi nekk ci mbaax buñ la xoolee gis ni yow nekkoo ci mbaax sa beneen moroom a ngi tegu ci mbaax ci njub gi ñu nekk ñoom dañ naan la laa mais buñ jëlee beneen angle bi maanaam ki nekk ci mbon yoon wi mu ne comprendre nga ñoom ni ñuy tuddee ñi nekk ci yoon baax maanaam ay seer ngaaka lañ leen di tuddee donc fële yow yaa raw fii kii mar sans dépend ci ji atte ban fan la ci nekkee kële day wax ne ñi ay seer lañ donc yow jàpp nañu yow yaay nante di nga gis kër goo xamante ni gii hmm. ka fay def naka sudut noonu hmm. moom lañ naan kii mooy nante kër gi ña fa jub ñooy ñi ay ngaaka lañ boobu kii tànn li muy wër yoonu yoonu ñi jaar ci yoon wala lay wër léegi kii tànn fii ñiy wër ci yoon wala la ñuy nekk comprendre loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li am ci mbir yi maanaam ñun ñëpp bokkuñu euh, kii xam nga tey ji parensaay dañuy wax ne euh, temps mbir la moo xamante ni bi bu individuel la nekkul loo xamante tey ji yow une heure temps peut-être ni mu mel ci yow ak une heure temps ni mu mel ci man mën nañoo wuute mm-hmm. te pourtant lépp une la de man mën naa gaaw ci man lool yow mu yeex ci yow mm-hmm. yow wala mu gaaw mu yeex ci yow lool lool mu gaaw ci yow lool man mu yeex ci man am na koo xam ne une heure de temps fi toll nii daanaka day jàpp ni mun lim ciy def doyut mm-hmm. am na koo xam ne une de temps yi day wënde naan waaw waxtu bi moom yeex na di xam nga kooku te pourtant benn temps bi la ñuy wax <laughs> comprendre léegi nag problème yi maam maanaam Mansour Faye ay problème am la ñu bëgg a transférer maanaam ay jafe-jafeem xam na ni jafe-jafeem yooyu moom la du ñun léegi nag bu waxee ne danger réew maa ngi ci danger kooku moom moo nekk ci danger mais ñun newuñ ci danger parce que ñun li ñu doon seet moom la ñu gis gis nañ ñoo xamante ni seeni wax nañ doon waxee nii lañ doon waxee de kon ñun nii ñu nekkee xale nii lañ leen bëggee nii ñuy waxee waxi xale waxu xale yii noonu lañ ko bëggee parce que ñoo tolloog ñun suñu dégg-dégg looloo tax nag Ousmane Sonko xale yi gën koo mën a dégg ka mag ñi. léegi ak li mu wax ne. Euh, Euh, kenn xametul kan mooy président bi si ñoom <laughs> si ñaar jàngat boobu. waaw loolu moom mënu koo xàmme parce que ñun bi ñu ko waxee ne ko sonkooy jomaay jomaayee sonko loolu moom dugg ci suñu bopp. ñun ba sonko démarré. jomaay jaar ne la sonko jaar ne ñu ne sonkooy jomaay jomaayee sonko boobu la adopté sonko jomaay ñun kañ <laughs> kum ci doon baax na. bu ñu doon xaar jomaay sonko ñëw baax na bu ñu doon xaar sonko jomaay ñëw baax na parce que kenn ki la. ñun jàppee wuñ ko ñaar moom mi nga xam ne nekkagut foofu. Euh, kooku problème am la léegi nag bu jéemut a connecté wu réew mi day dem ba ko fi rek mu nekk fi nekk ci ay kenn xàmmee tut kii kenn xàmmee bu ñu ko xàmmee woon rek musiba am. Hmm. d'accord nii mu mel nii noonu la a noonu la gënee. Hmm, a na 100 jours yi nag njàngat bi mu si def très rapidement balaa ñuy jeexal. lu mu ci wax. nee na 100 jours yi fii eh, kii bi defagum ñoom daal gisaguñu loo xamante ne nii. lu ñu mën a. waaw c' léegi mu gis ko léegi se est bu tegoo ci taabal ji rek léegi mu gis ko. <laughs> comme que gisagut dara. wax nañ 100 jours yi wax nañ problème yi wax nañ fi rapport yi wax nañ fi lii yi wax nañ yu bari ñi nga xam ne yëf yi épinglé nañ leen mu ne 100 jours yi yëgagut dara 100 jours yi ñu ngi ciy taxaw état baa ngi def loo xamante ni ki bërki Dembo Ndiaye moom taxaw na fi woote set setal. ca Ndar gis na mbooloo mu mus musta gis. waaw woote boobu dafa waxoon nañ ko. accueillir waaw loolu wax la woon rek pour raaxaloo buruxlu burux alaaji nee nañ xale yi nee nañ lu mënu fee nekk de. buruxlu waaw am na ñoo xam ne mën nañ leen a bàyyi ñu buruxlu mais am na ñoo xam ne dañ leen di bloqué. <laughs> ngi noonu jërëjëf. Euh, nga ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, internet yi ñuy suivre. waaw di joxante dig daje incha allahu rabbi beneen altine ak jàmm ci kàttanu borom bi. mi ngi noonu jërëjëf euh, Mbengue jaajëfal itam euh, Modou juuf ak Abdoulaye Diallo ak Abdou Top ci liggéey bu rafet bi macha allah jaajëfal itam képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci l' émission des émissions jox leen dig daje beneen altine ak l' émission des émissions.